فلا بد من شكوى إلى الله كربتي فما لي غير الله جابر كسرتي وقرعي باب الخير يا رب لم يفد لذاك صرفنا نحو بابك وجهتي فلا بد من شكوى إلى الله كربتي فما لي غير الله يا عبر كسرتي وقرعي باب الغير يا رب لم يفد لذاك صرفنا نحو بابك وجهتي فأنت كريم فالكريم من التجا إلى بابه يأمن على كل نقمتي فأنت حليم يا صبور لمن جفاه فها أنا عبد جئت بادي زلتي فلما بدا لي أنه ليس مهرب سوى بابك الحامي مددت يديتي إليك بضعف وافتقار وفاقة لتغفر لي يا ربي من كل ذلتي فبين يدي مولاي ما زلت واقفا زنيلا حقيرا مستغيثا لشدتي فأنت إلهي يا مجيب لمن دعا دعوتك يا ستار فاستر معبتي فيا ربنا اصرف إليك خواطري بجاء نبي للبرية رحمتي فيا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توصلنا بخير البرية وشفعه فينا في اللقاء وكلنا سوى الحب موصوف برعب ورهبتي بآدم إدريس وهود ويونس ولوط ونوح ثم خاو لقلتي وداود يعقوب سليمان يوسف وإسحاق إسماعيل إلياس جنتي وموسى وارون وأيوب واليسع وذي الكفل يحيى ثم عيسى الوسيلة كذا زكرياء شعيب وصالح تقي نار الدارين من كل وحلتي فيا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية السلام عليكم waa Bambilor ما لين leen di nuyu man la Saldiga Ibrahima dëkk Bambilor dama def deux témoignages rek si ki nga xamante ne moom moom bés bi suñu maam suñu kilifa Moussa Ndiaye ñaari témoin rek laa si mën a def yu ma fekke c'était en 1982 bi nga xamante ne gouverneur de la région de Dakar on nommé Tidiane Ly ñëwoon fi di fay lempo ah, keroog jour boobu ñu bari ñu ngi woon si ñu ngi woon si kër Baye Moussa su mais bi mu ñëwee mu xam ne am na fi problème nar na fi am moom si boppam dafa jóg ooma ne am na lu mu denc kër ga dellu sa kër ga ñëwaat ne ma am naa trois 300 mille mu bëgg doole jàppale sa nijaay Ousseynou Ndoye man ko ah na trop loolu daal mooy premier témoignage deuxième témoignage mooy école bi sem bi sem bi ni mu ko réfectionné woon ndax boobu élèves yëpp te ngeen la ñuy jànge mu àndax abu si ñu di ko dox di ko dox ba ñu accordé leen CEM bu Bambilor bi ñu ko accordé leen CEM bu Bambilor mu si huit cent et quelques mille pour élèves yi ba ñu dem ci Tëngéej ñëpp di jàng si Bambilor ñëpp di dem Bambilor ku si am entrée en sixième yem ba troisième jërëjëf loolu rek la amoon monsieur doon di leen ñaanal ñu fekk ko ay ay ati ati at. waaw xanaa di sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi eh, di ñaanal ki fi daxa daje yal na yàlla yokk leeram sa aljanna Euh, mu doon ko baax a baax a baax bokk si famille bu baax góor gi Mor Taw Ndiaye euh, personne ressource loon si dëkk bi di chef du village euh, ba tax génn ak àddinaam da metti woon na si dëkk bi lool lool lool lool di wax ne daal ku baax la woon ku amoon alal te bokkoon kaak ñi mu jaboote ndax am ba am jeex am baax na waaye am ba pare bokk kaak ñi nga jaboote dafa am solo te moom noonu la doon dunde loolu mu doon dunde nag si la ndàmpatal ku ñuy wax Njaga Njaay doomam eh, ba tax Njaga eh, doon sama wëllëre Baye Modou Sow Ndiaye doon sama wëllëre góor gi boo sa Modou Faye kon mbay Modou Sow Ndiaye yal na yàlla xare ko àjjana ak i magam ak njabootam yëpp eh, képp ku ko yéene yal na yàlla defal la ko waaye daal lu ñu mën a si moom daal bari mooy daal ko baax la Euh, ku amoon wërsëg la te bokkoon kaag dëkk bi yëpp yal na yàlla yokk leeram sa aljanna yàlla di sant jaar ci yonent bi di sant sama ñaari waajur yu baax di leen nuyu man bis bi aw ma ci dara lu may wax xanaa di ñaanal sama euh, sët sama doom yi nga xam ne ñoo waral bés bi surtout Mbaye Ndiaye nag ndax kat lii lépp moo ko wax moo ko def moo ne nañ nañu ñaanal suñu waajur yi masula échec benn yoon lépp nag moom la ku def mu def ku deful mu def ñu ngi leen di sant bu baax sunu waajur bi nag dañ koy ñaanal bu baax a baax a baax ndax gis nga kër gii ni mu rëyee te yaatu daanaka ay jigéen rek la jur daroon tabax di seen bu wande yi mujjul yàlla mujj ko yeggale danaan wax ay jigéen rek laa jur te bëgguma kenn taxawaal su ëllëgee ndax njaboot gu jigéen muñuñu te góor ñit yoruñu kon nag bu amee waajuru wel noonu danga koy ñaanal yàlla maa ngi koy ñaanal yàlla bu baax ak samay rakk ñëpp nu ngi koy ñaanal yàlla ndax kenn nag génnu luye ji nag ñi sëy dañoo jël seeni néeg luye ka di ci faj seeni soxla ñun ñi dëkk nu ngi dëkk dëkk bii tamit fii tey nga toog dàll yi foofu la daan commencé ba ci buntu néegam bii ku ñàkk dépasse fi ngay ñëw ku am soxla fi ngay ñëw ku am loo xam ne itteewoo nga ko ci ci euh, faj aada fi ngay ñëw mosula am nelawu bëccëg mosula am nelawu guddi lépp di dimbali jaam yi kon nag nu ngi koy ñaanal fu mu tëdd yàlla na ko fa yàlla xare àjjana yàlla lokki yokki leeram ak mboolem judd moom fa fekk si kàntanu yàlla ñun mënuñu kaa fay yàlla rek a mën a fay ndegem waajur li muy def ci doom di ko def ci jàmbur xolam rafet moo ko yóbbu àjjana yàlla na ko yàlla xippee àjjana xippee na fa bu yàgg sax dañuy ñaan yàlla dolli ci kàntanam ñu ngi sant bu baax a baax di sant waa dëkk bi yëpp nag ndax saa bu ñu koy def rek ñëpp dañuy teew andi seen alal andi seen lépp borom xam-xam yi ñoo wàcc kaami ñaan defar ba mu baax fii tey nga teg këf kii wàccuwaay yi bari woon na fi de samedi ak dimanche bàyyi gay tàmba bàyyi bàyyi Thierno Amadou fii lañu daan yendu samedi ak dimanche ku nekk di weccoog sa moroom xalaat di seen xam-xam ci seen xam-xam ñu sant ñooñu bu baax a baax a baax bàyyi teen ji bi fii la daan ñëw baay gay tàmba di ñëw fii samedi ak dimanche dañuy indi seen kees si jën ñuy indi xar ñu ne ci di togg kër gi mel ni macha allah gàmmoo fi ne kon nag ñooñu kenn mënu leen a fay ñoom it bañ demee seen njaboot a ngi fi di def ci ñun lu baax kon nag yal na leen yàlla fay ñoom ñëpp yal leen yàlla defal jàmm ci kantaru yàlla maa ngi sant ñëpp nag samay rakk ak samay doomi càmmañ ak ñëpp bàyyiwuma kenn bàyyiwuma kenn kenn laa bàyyiwul góor ak jigéen ak mag ak ñëpp maa ngi leen di sant ndax ñëpp samay njaboot nañ def ginnaaw yàlla ak yonent bi yaay mbay rek moo ma mag ci famille bi ba ma magee tamit ñii samay rak teg nañ ma sama place ñii ngi seet lu ma sol lu rafet ñii ngi seet lu neex lu ma lekk kon nag mënuma leen a fay yàlla na leen yàlla fay jerejeuf assalam assalamu alaykum man ma ngi tudd Babacar ndjay nek euh, petit fils su euh, Mor Sow Ndiaye Modou Sow Ndiaye nag mooy ancien chef de village bu Bambilor donc euh, tay besu tay bi moy besu prière bes bo xamne dañ ko jagleel ay prière annuelam am ay journée de prière et de recueillement pour la famille Mor ndjay mom ak frère sœuram ay param ak en tout cas mbokam yépp njabotam yépp euh donc modou so ñay nak mom comme nima lañ ko waxé moy ex chef de village bu babilor euh ñu gën ko xam ci serigne ñay ñen ñi donc eh, muy ko xamné ku ragné ko won la ci chef de village mbambilor yi lu bari mu def ko fi sonu ci bambilor lol def ci ay sacrifice yu bari donc euh, tayji sax journée bi ay témoignages yéen ko ko ndor feulé ku nek di wax euh, ay témoignages yo xamné ne euh, si ay actes yo xamné de bienfaisance yo xam defon nako ci dëkk bi légui amna le jaraaf de Bambilor mu ngi may naan gouverneur de fi musa ñëw voilà di demander à ce que ñu def recouvrement des impôts parce que à l'époque impôts, le gouverneur autorité administrative bi da doon ci les services des fiscs ñu ñëw diko def ci village yi alors bu ñëwé nak euh, parfois même dañ doon humilier manam dañ doon xawa a ñàkkal wala ñàkkal kersa euh, ay ay kilifa ci affaireu pay impo alors histoire bi mu ci netali bu ñëwé Bambilor euh, ñuy demander à ce que ñu fay vraiment duggal dara ci impo yu Bambilor wara fay à l'époque pa bi dafa dem kërëm génnee 300000 à l'époque ça fait des années donc 300000 xaalis bu bari la won mu génne ko fay pour tout le village donc yo ay acte yo xam la mom non la nekkee woon ci dëkk bi euh, léegi aussi amna kuy def témoignage naan mom bu jàngee mbamilo c'est à cause de lui parce que à l'époque euh, sur les années 80 xam nga gouvernement bi dañu am moyens dafa limité à l'époque donc euh, nit ñi dañ doon jang di dem Tëngéej wala di dem feneen di jàngi bu ñu waree defal CM ñu def demande bi au niveau de l'État l'État li mu leen wax moy bon ils sont prêts à mettre à la disposition de BAMILO des enseignants pour le CM mais nous bu fekkee mën nañ tabax wala ñu indi locaux ak ay tables. donc euh, ils sont prêts à mettre à la disposition pour que fii am CM donc Nolou il a débloqué 800000 te toolam la jaay il paraît euh, ñëw euh, voilà réfectionner benn local bu nekkoon euh, mu nek euh, un abri boo xam ne moom la moom lañ def le premier CM de Bambilor donc on peut dire que s'il y a aujourd'hui un CM à Bambilor c'est grâce d'une part à lui donc lolu aussi ay actes yoo xam la témoignage yi sa mu ngi fële chaque fois ñi ñangi ngi joxe témoignage bu nek donc euh, man sama mam la waye xam naa ne dëkk bi mu gëna xam parce que man nek ba mom lu bëri mais di ba dëkk bi di wax mu ngi nonu ci tante bi donc lolu moy kooku moy morceau Sow kenn ku ci ñëw da ngay joxe sa benn témoin boo xam ne kenn xamu ko ku nekk foog na ni li nga xam si moom euh, keneen xamu ko donc kii daal mooy Mor Sokhna moom la ñuy defal ñaan tey ci euh, dëkk bi yëpp xam ko euh, tund bi yëpp xam ko jandeer ñu nekk zone bi yëpp chef de village dëkk boo ci dem boo ne Modou Sow Ndiaye xam nañ ko donc ci acte de bienfaisance bien am boo demee aussi ci ci les xalif généraux du Sénégal ñëpp xam nañ ko donc man sama bop netali na ma mom moom moko ñëk may auto si Baye Niass sëñ Ibrahima Niass Kaolack parce que bo ma ngi ay cété les années 90 ma bak bac ma ñëw fi ne ko mune ma foy jangé ma ko Kaolack la doon jangé fofu la amé bak mune ma ah fofu kaula dama fa doon ñëw Ibrahima sama xarit la man pour man Ibrahima c'est quelqu'un d'autre bo xamné ben pa bu nek fo wala je sais pas C'est après le ma non Ibrahim je dem donc pour dire que il avait vraiment une relation intime avec euh, voilà yo yo yo yo yo Serigne si les Khalif, ci donc voilà euh, euh, dafa ndax ñëpp xam nañ salu, Serigne Saliou ak euh, moom ñaar yaayam ñoo bokk presque ñoo bokk benn baay euh, Fatou Diakhaté la moo jël Serigne Saliou Anta Diakhaté moo jur euh, Mor Ndiaye Mor Ndiaye moo ko jur moom noonu la demee donc c'est de de de benn famille la donc ñetti femme la yoo xam ne moom lañ jox Serigne Touba ku ci njëkk mooy Mariama Diakhaté moom lañ jox njëkk jox Serigne Touba mu am ci Abdoulahat ak Serigne Sonibou mu làqu sëñ son bu muy làq sëñ son mu ngi nàmp mu jëlaat Mariama Jaxate joxaat ko ko ñoom ñaar ñoo bokk benn baay toujours Masata Daara Jaxate mooy jël di joxe Serigne Touba joxaat ko beneen doomam encore parce que ki ko njëkk jox faatu na mu joxal mu joxaat kooku mu am ci Serigne Saliou donc nii la demee waaye keneen ka nag mooy mooy Jaxate moom moo jur noonu sunu maam moo jur ay papay Mor Sow Ndiaye donc noonu la deme donc c'est pour dire que Serigne si fépp fépp la am tànk donc kii daal mooy de manière résumée Mor Sow Ndiaye lakkamal basir wayanaati maanawiha walakkal midaad wa masrabi wal maqulu dame tamatri, daamata tertani. wa tartani في مسكن التوبة التي لك تنزل عنك تغادي وانتغادي رادينا وإليك خزي راجيا لك أرنو ناجت ربا وعادنا لقد غادني بالجود والإكرام نم المجر هو مالك هو نافع هو رافع huwa waasun wa huwal jamiilul mutminu maaliku lahu sarqun wa qadbun wa doo wa kasaaluhu barrun wa bahrun yukmalu wajilu mutawaajiun bil musaa wa bi aali bari ruqati man kumilo ridwaanu man دعوة غي دعوة عليهم وعلى رفيقهم الذي يتتفرى ضيف ضيف يرتجي بهم الخيرات من من يكرم من يزا ويبجل وليت علم من ولم مدبرا لله بالقرآن لمن مزرا أبخي به وبخدمة ماه النبي وجه الذي من أما لا يصلى حمد الله ويزوغ من أسيه وعلي جل جلاله أتوكل ناجيته ورد كوني رديا قبل دلا هب للمنى وآل الوزينة صليا يا من يخدم من يضع ويفضل كسل يتبقون جل مكة دمناتي bur yàlla yàlla na ko may ay kër fa jannaati ku selliyu te bëggoon njool makka dem naati bur yàlla yàlla na ko may ay kër fa jannaati xol baa sa toon mu ay jëf jëfan ko jëf foo yem bi yem kenn ngir te xem nga wér naati bay moo saw njaay gor dem na gor dëddu na ka woon ñëpp aw yiw way jannaati xol baa sa toon mu ay jëf jëfan ko jëf foo yem du yem kenn ngir te xem ma sow njaay gor dem na gor dodu naa ka yéene ñëpp aw yow way na jannaat yi xol ba setoon mu rayoon ay jab-jabam ku ka فايم دو يمكن نجيت أغام غبرناتي باي مصو نياي غردم نغردنا كيانا ونيب أوي وينا جمناتي نبور يرمكو تجيقل كوي جفم يمو جف تخيات لنور جم آمن فجناتي نبور يرمكو تجيقل كوي جفم يمو جف تخيات لنور جم آمن فجناتي وهب لنا نور على النور وليا سادة الدارين idan wa rahmatan min Allahi mbokk yi moo ngi ñaan ci barke Seydina Muhammad bépp bayit bu ñu jàng yàlla na ko yàlla nangu te jotale ko ci sunu maam Baye Mansour Ndiaye